daa waxoon ne saraxe ak def sa alal ci yoonu yàlla ak jokku bokk yu mel nii bokk na ci yi nga mën a feccalee sa jamono ba sa waxtu du jàll rek noonu ci neen ñu bëgg ci indi ab dog boo xam ne nag da nga ci dolli koo xam njariñul saraxe ak def sa alal ci yoonu yàlla ak jokku bokk ni mu réye ak ni mu baree tuyaaba ne saraxe ak def sa alal ci yoonu yàlla man nga ne ñoom ñaar ëmb nañ mbooleem xeeti yiw yépp yépp yépp yépp mooy lu baax loo bëgg rek xamal ne yaar yi ëmb na ko te mooy saraxe ngir yàlla ak def sa alal ci yoonu yàlla ba tey lépp loo xam ne soo ko defee rek jullit ñi jariñu ci xamal ne loolee mën nga caa amee yiw wu ne jokk bokk yi noonu ba tey mën nga caa amee yiw wu ne mu ne nee nañu bu bis penc ci ñëwee bañ jël siraat gàll ko ci kaw sawara ñëpp war caa jéggi jàll ku jëm sawara ak ku jëm àjjanaa ci yam mooy jaarukaay bi nit ñi maase ci jàq ak tiit ak amu tiis ak jaaxle dana am ku jébtaane ci kaw ci ndigalul yàlla ne waaw ana ñu daal liggéeyal jullit ñi su ko defee ku ca bokkoon na nga daal tontu ne man man man dina leen yéen nag ay ca dem leen àjjana fi saasay saas rek daal leen dem àjjana duñu am benn coono duñu am benn fitna kon nag del farlu ci foo toll di liggéeyal jullit ñi mooy rek def loo xam daañu ca mën a jariñu te yàlla rek tax te kat loo leen defal bul ko gis bul jàpp ne defal nga leen dara sa bopp rek nga defal rawante na nag nga di leen jéem a ñax ci wax kenn naa ko maala nangam maala defal nangam bul ko nag mën nangam déedéet moom daal foo tollu dee leen defal la nga mën ci lu baax te yàlla kese tax ba noppi nag saa yoo ko defee ba noppi rek fàtte ko mel ne mosoo koo def bul def itam ba naw ko loo def rek ci loolu say boo xeeb ko mooy bul ko wutee mukaay teel def rek di wee ñax mooy defal kenn lu baax ba noppi di ko wax ak waxaat bul ko nag man nangam ak nangam maal defal nangam maal defal nangam loolu mooy ñax jullit ñi moom foo toll dee leen jéem a defal lu leen di bégloo luy neex ci seeni xol ñu cay bég waaye daal del moytu feeñal dara dara loo xam ne da leen di naqari ab jullit daal moom del jéem foo toll di ko bégloo su fekkee mënoo koo bégloo nag moom na nga ko moytoo teg wenn naqar lu mu tuuti tuuti nee nañu sëñ bi daana tomb di wax ne kenn deful kenn dara kenn defalul kenn dara lu waay def rekk boppam loolu wax ju yéeme la kenn deful kenn dara kenn defalul kenn dara lu waay def rekk boppam nga xam ne kon li nga defal keneen ci lu baax sa bopp nga ko defal li nga def keneen ci ab safaanit sa bopp rekk nga ko def ndax ci yow rek lay dellu si benn fii ci àdduna baa rek fële ci àllaaxira waaye tooñ ba noppi moom rëcc mënta am ku ñëw ci yow nee na di sàkku nga dimbale ko jox ko joxo jox ba mel ne taw buy sotti mooy soo ko mënee nang ko joxo jox may yu bare bari ba mel ne taw buy sotti bul ne lii daa koy denc ba ëllëg ndax xaw ma ëllëg nu muy dikkee xaw ma nu jamono yi dikkee déedéet moom daal ndegam rek fañ nga sa lor ba noppi da ca des joxe ko ngir yàlla ndax loo joxe te yàlla tax rek yàlla moo lay wutalal lu wutu loolee ndax suñ boroom moo ne wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yuxlifuhu wa huwa xayru raasiqiin lu ngeen dundale te yàlla tax yàlla moo leen koy wutalal joxe sa alal def ko ci loo xam ne lu yàlla gërëm la ak sarax ña nga xam ne ñoo loru moom ni ñu bare ay ngëneel dafa ëpp ba mënees ta wax yépp yépp waaye nag nan la waxal fii yu bare bari ci yooyu da nga gis daal ñett yàlla dugal leen àjjana bu ëllëgee te lañ joxe woon kat daa mel ne lu néew a néew la woon ndax lu toll ne tibu mburu mel na ngeen dogu mburu rek mbaa nëqub tàndarma mel na nga buub tàndarma rek mbaa lu mën a jëriñ ab miskin lu toll noonu képp da nga gis ëllëg yàlla dugal ci àjjana ñett ñi mu la wax borom kër gi nga xam ne moo liggéey andi soxna si toppatoo waajal sa wax si ak kam ko jox ne ko am jot li ko kiyal waan ñett ñëpp sarax bu néewoon a néew boo daa xeeb ba nga tollu àdduna mel ni rek lu toll ne tibb mburu dogu mburu rek mbaa nga bu tàndalma rek yàlla dugal ci ñett ñëpp àjjana ci bis boobule loolu nag mbaaxu yàlla saraxe day tax a mucc ci balaa day tax a mucc ci deexin wu ñaaw saraxe day tax yàlla musal la ci sëgg ci bàkkaar sëgg sëgg ci bàkkaar moom moo gën a bon lépp saraxe day tax yàlla musal la ca ba tey saraxe day tax yàlla musal la ci tooñ doomi aadama yi tooñ bokk na ci yi gën a bon ndax yonent bi nee na ab zulumu zulumaatun yawmal qiyaamati maanaam tooñ bu is pencee tooñ day soppi ko ay lëndëm ci kanam ka nga xam ne moo daa tooñ yépp nag saraxe day tax rek yàlla musal la ci saraxe day tax yàlla musal la ci naagu yërmande naagu yërmande bokk na ci gën a bon ndax bu xasee naagu yërmande daragalati benn bàkkaar ndax day wax ne bu ma mucc moom lu ma neex naa ko def loolu nag moo tax naagu yërmande moom bon lool saraxe day tax nag nga mucc ci saraxe day tax yàlla musal la ci dogu bokk dogu bokk bokk na ci gën a aay ndax suñu boroom daa juboonteeg ak mbokk ci ku ko dog moom yàlla mu dog la ku ko jokk moom itam mu jokk ko saraxe day taxa mucc ci déggu bette di taxa mucc ci mujj gu ñaaw nee na benn saraxe dong mën naa tax yàlla fekk juróom-ñaar fukki deexin yu ñaaw yu naroon a xew benn saraxe tax rek yàlla fekk loolu lépp ba ak siwut nga xam ne moom la ndox di fayee sawara rek noonu la saraxe di fayee merum yàlla noonu lay wàccee ñaawteefi ka saraxe waaw kon saraxe day tax merum yàlla mere woon doomi aadama yi rawante ne moom may saraxe bu fekkee fekkoon na yàlla mere ko day tax mbir moomu daal di giif ni nga xam ne rek moom la ndox di fayee sawara ba tey saraxe day taxa yàlla tàggale kook ñaawteef yi jégal ko ko mel ne mosu caa jaar nee na bis pénc ba nga xam ne ker dafay jafe lool ndax ker gi ñu wax liwaawul xam di yonante bi kerloo ko mokk saxaabaam ya ak keruk xaras malaaka yi kerloo ko la ko ñetteel rek mooy keruk ku daa saraxe rek la nga daa saraxe mooy soppiku ker ñëw tiim la di la keral a tax mu ne ku daa def sarax bis pencee sarax sa day topp sarax sa day soppiku ak ker mu mën caa toog fegoo ko tàngaay woowale sarax yi day taxa am wérug yaram soo wéradee mbaa nga am ku wéradi say boo rekk di saraxe saraxe ga day tax nga wér te wérale ba tey saraxe day tax yàlla jéggal la say bàkkaar kon nag dee ko def di ko lebal yàlla bu la fayee rek soxol sedd saraxe day tax alal jëm bàyyi ko laab te set ba noppi itam bañ a laatu saraxe day tax yàlla dàqal la balaa ak mboolem xeet tawat yi nga xam ne mën naa jëm si ci yow kon saraxe ni muy faje jàngoro noonu la koy fege itam ba du ñëw saraxe baax na lool ndax boo ko defee da nga dugal aw yiw ak mbégte ci xolub jullit te jullit moom lépp lu ko bégloo rek xolam sedd rek lu rëy rëy la fa yàlla kon nag saraxe day tax yàlla bari sa wërsëg yaatal ko yaatal saraxe day tax alal ja nga saraxee barkeel ba noppi na mucc dara du ko laal maanaam saraxe day tax sa alal ñoŋ dara du ko laal ba noppi itam nag am barke boole ci saraxe day tax boo lëgee bu la yàlla xisaab xisaab ja woyof te yomb lool ba tey saraxe day tax bu ñuy peese sa jëf yiw sa jëf yiw diis lool daal di wat jëf yu safaan ya ndegam am nga ay jëf yu safaan saraxe day tax booy aw ci siraat mu yomb lool jàppandi lool nee na saraxe day tax boo liggéey yàlla yëkkati see daraja foofee ci àjjana nga bokk ci ña fa am daraja yu kawe yaa kawe nee na saa yoo saraxee rek boole nga yaar def nga lu yàlla gërëm def nga lu naqari iblis iblis moom naqaral ko lu rëy rëy la lu baax a baax la gërëm lu yàlla nag moom dara tollu na léegi nag boo saraxee boole nga yooyu yaar naqaral iblis def lu yàlla gërëm lu mu bëgg-bëgg nee na saraxe baax na lool ndax boo saraxee faqir mbaa miskin dalay ñaanal te ñaan yam lay ñaanal rek yàlla mën na koo nangu mu dal la loolu nag kon lu rëy rëy la nee na ku saraxee te yàlla rek tax raxoo ci dara dara lu may yàlla kese kese bu la yàlla fay bu ëllëgee day fula ful yool ya rek mu baree bari lool ba yéem la na nga moytu nag di saraxe di ko jox koo xam ne da koy moye yàlla ngay fexe daal ba koy sarax rek mu wóor la ne li nga koy sarax da koy jëmale ci lu yàlla gërëm waaye du ko jëmale ci lu yàlla gërëmut moom daal del moytu moom sarax koo xam ne jàpp nga ne li da koy moye yàlla rek kooku daal ëpp naa def mu ne nee nañu nit ñu baax ñi am na ci ñoo xam ne ñoo saxawoon bis ba ne rek faaw ñu saraxe dara ngir yàlla lu mu néew néew daal moom duñ toog bis ba bis jàll te saraxe wuñ ca dara dara dara duñ ko xeeb nag bu toll ne aw miskit mbaa bong bong mbaa tàngal mbaa benn tàndarma it mbaa xaaju tàndarma it du tee rek ñu joxe ko ngir yàlla waaye duñ bàyyi benn bis jàll te saraxe wuñ ca ngir yàlla mu ne nag di saraxe weesu fi koo xam ne yeeyoo na ko jàll jox ko keneen loolu ëpp naa def loolu moom njuumte lu rëy rëy la nee nañu ku yor sarax weesu fi ku ko yelloo dem jox ko keneen daal mooy nga yàlla mooy gu wér a wér def nga lu wutoon def daal bu wér a wér maanaam daal boo xasee bay saraxe jox ko rek ka ko yelloo te jege fa waaye bul ko weesu dem di ko joxi keneen ku sori mel ne nga bàyyi fi sa dëkkaale bu sës ci yow dem di joxi keneen ni ñu yonante bi digg ne mooy boo dee bëgg a saraxe da ngay njëkk a seet yow ci sa bopp ba xam loru nga ci am déet boo ca loroo rek far ko téye saraxoo ko bañ ko weesale sa bopp su fekkee sa bopp loruwoo ci nga seet sa njaboot gi ba xam am na ci ku ca lorom déet nga jox ko ko bu fekkee gisoo kenn ci sa njaboot ku ko ku ca loru nag nga seet ña nga dëkkaaleel ku la ci gën a jege nga jox ko ko noonu lañ ko yonante bi digale ku la gën a jege rek te loru ja sarax sa boo ko joxee ci ngay ëppee tuyaaba di suñu boroom ne qul ma anfaqtum min xayrin falil walidayni wal aqrabin door a jàll moo tax nee nañu al imaamu xaal yu nee na jox saa mbokk benn dërëm moo ma gënal dem di saraxe ñaar fukki dërëm weesu saa mbokk moomu ba tey nee nañu Zeynab moo doon soxnas Abdullah ibnu Mas'ud daal di ko ne yonent bi dama bëgg na saraxe ibnu Mas'ud ne ma man sa jëkkër ak sa doom ji noo gën a yee ci sarax si yonent bi ne ko wax na dëgg de moom day moog doom joojee di sa doom ñoo gën a yeyoo sa sarax addis ba nee na kuy saraxe weesu fi ku ko yelloo dem jox ko keneen yàlla du nangu saraxam mukk addis ba nee na bu fekkoon ne benn sarax lu mat juróom ñaar fukki junni dañ ko joxlante kii saraxe ko kooka saraxewaat ko kooka saraxewaat ko ñu koy joxlante ba mu dem ci loxo yi lu mat juróom ñaar fukki junni du tee ka ko mujj saraxe dana amee yool bu toll ne yoolu ka ko njëkk saraxe ndegam moom am alal ba di ko joxe yombul ñëpp ñëpp nag am na yeneen yu bare bari yoo xam ne du alal te ñu bari mën na ko te buñ ko defee rek mu daal di wecci saraxe bokk na ca julli yoor yoor ñaari rakk lum néew néew boo jullee ñaari rakk ci waxtu yoor yoor rek daal di am tuyaabay saraxe ba tey boo defaree diggante ñaar ñoo xam ne seen diggante dafa naqari woon rek nga defare leen bañ juboo rek mbaa boog jéem nga saman man jéem leen defare doon sax la nga bëggoon yàlla dogalu ko it da nga ci am tuyaabay saraxe su ko defee ne benn subhanallah boo ko waxee rek mu daal di wecci saraxe benn alhamdulillah ba tey noonu soo jëmee jàkka ja benn jéego boo soqi rek ñu bindal la ci tuyaaba yi saraxe boo gisee ci jàkka ji lu mel ni aw ñandax it mbaaw tiflit nga daal di koy maasale suul ko it daal di am tuyaaba yi saraxe ba tey benn baat bu teey boo wax rek yàlla dina la ci bindal tuyaaba yi saraxe ba tey buub jàkka maanaam bale ko wala nga buub ko ba mu set daal ba tey moom it des na ci am tuyaabay saraxe taal ca lu ko leeral fekk ñu aajowoo nag leer ga ndax dañuy bañ jàkka ku ca taalub làmp te fekkul ñu aajowoo ko faaw day aajowoo day aajowoo bala ñoo taal ab làmp ci jàkka ji rek fekk ñu aajowoo ko mais nag suñ jamono ji ba tey ni muy tàngee ku ca def luy seral uppukaay yooyu itam mu ne kon na nga ci am tuyaabay saraxe maaroof mooy lépp loo xam ne lislaam da koo xam jàppe ko lu baax munkar mooy lépp lu lislaam aayal taamuwu ko digle lu baax aayal lu bon moom it des na ci amee tuyaaba yi saraxe lépp lu jëmm ci def bañ bañ yàq ab deram rek niki yëkkati alalam joxe ndax bañ ko yàqub deram du tee ñu bindal ko ca tuyaaba yi saraxe ka nga xam ne nag moo ñaaw làmmiñ ba nga xam ne ku ko joxul mu yàq sa der nag waa koy kooku nag moom moo yées ci nit ñi te it mooy gàddu bakkaar wa toog jublu xibla te yéene ci jaamu yàlla waxuñu rek nga toog jublu xibla fekk dafa tombe nga ci am yéene ci xam ne yàlla fonk na jublu xibla nga toog jublu xibla loolu boo ko defee ñu bindal la tuyaaba yi saraxe tinu doomi aadama ji mu mën di doon ndax ñu tin ko ko def rek am ca tuyaabay saraxe moo xam nag yàlla dogal na ñu tin ko mbaa sax la nga ko doon sàkkul ci ñu tin ko amut waaye jéem nga rek daañu la ci bindal tuyaaba fekk yoon wa am lu mën a gaañ kenn ku faroom bu nga toppale ko ba kenn bañ caa gaañu moom it daañu la ci bindal tuyaaba yu saraxe gumba gu xamut fan lay aw nga gindi ko teg ko ca yoon wa ba tey da nga ci am tuyaabay saraxe daa wax ne sa alal loo ca lekk bokk kooku jullit maanaam mel na ngay lekk rek ab jullit ñëw nga woo ko ngir yàlla ngeen bokk lekk lu mu ca lekk rek ñu bindal la ko tuyaaba yi saraxe ba tey sa mbokkum jullit boo waxanteeg moom wax joo xam ne la mu di ab jullit moo tax nga fonk ko bay wax ak moom noone waaye ngir yàlla rek a tax du sag bëgg du sag bari ay wax te bu doon ku gëmul yàlla it doo waxee ak moom noona ni nga waxee moom yàlla rek tax daañu la bindal loolu tuyaabay saraxe ba tey ku gëm yàlla saa yoo ko bégalee rek bégal nga nga ko bégal daañu la ci bindal tuyaabay saraxe ab julit soo jàkkaarloog moom tàllal sa kanam muuñ ndax sopp goo ko sopp ngir yàlla rek ñu daal ciy bindal tuyaabay saraxe sa mbokkum julit saa yoo ko teralee rek lu mu néew néew ñu bindal la ca tuyaabay saraxe dañ ne woon sa kanam képp boo ko tàllalee muuñ ci kanam sa mbokkum jullit ñu bindal la ca tuyaaba fii nag mu ne boo ko nuyoo ànd ak muuñ ba tey moo kanam gu tàll gi ñooye moo daañu la ci bindal tuyaaba sa mbokkum jullit bu amee mbégte nga ndokkeel ko ca ndokkeel googee daañu la ci bindal tuyaabay saraxe daañu wax itam jaali ga su amee aw tiis nga dem jaalu ko it noonu dana ñëw ci kanam sa mbokkum jullit boo ko xamalee lu baax ngir laa biire wala nga tegtal ko na muy def ba aajoom faju daal ngay am tuyaa bay saraxe ci loolee nga def ba tey sa mbokkum julit am soxla nga dimbalee ko ci la nga man lu mu néew néew rek te yàlla tax daañu la ci bindal tuyaa bay saraxe mu daaraatu mooy àndanteeg moom ca la ko neex te naqariwul yàlla loolu teggin la lool bu ko ñëpp doon def daanaka dund gi dana neex lool ndax bu fekkoon ne kenn ku ne la nga xam ne sawaay ji bëgg na ko te naqariwul yàlla yaa ngi ko cay fekk te yàlla tax loolu mooy mu daaraatu loolu lu rëy rëy la ko def ñu bindal la ca tuyaa bay saraxe safaan ba kay moo aay te bon bu ñuy wax al mudahanatu al mudahana mooy boo def diine ba topp nit ci loo xam ne neexul yàlla bëgg lu ko neex rek moo tax waaye xam nga neexul yàlla lool nag moom ñu al mudahana dañ koy moytu bu baax sa mbokkum julit boo ko ñaanalee mbaa nga sàkkul ko njëggal rek ñu bindal la ca tuyaaba yu saraxe xaw ba mooy lam aajowoo nga abal ko ko mu lay delloo si lu toll noonu dong moo xam day xaalis moo xam day wurus moo xam day ceeb mbaa leneen daal la cay soxlaam nga abal ko ci lu toll noona mu lay delloo si képp lu toll noonu desu ci yokk dara dara dara dara loolu mooy xarbu lu ñu sopp la lu bari tuyaaba la ko defal ni sax ñu bindal la ca tuyaaba yi saraxe ba tey nee na nga tàng sottil ko ca fa ñi roote mel ne bu dee ci teen ba nga jukki ci sa baag sottil ko mbaa ñuy kocc nga kocc ci siwo bi mbaa la ñuy kocce daal di koy sottil ci ndabam koo ko defal rek ñu bindal la ca tuyaabay saraxe jullit bi su xolam féer-féeree ngir ñàkk xéewal gannaaw ba bu amaatee xéewal itam du te yàlla bindal ko tuyaabay saraxe ca féer-féeri ga xolam féer-féeri woon ngir ñàkk xéewal ya waru daal li muy néew néew ku yittewoo nga jox ko ko mbaa ay dàllam dagg nga defaral ko ko ñu bindal la ca tuyaabay saraxe koo xam ne buumam dafa dagg nga fasal ko ko mbaa buumam ñàkk a jot nga jotul ko ko ba tey da nga ci amee tuyaabay saraxe sa mbokk di war nga yëkkati ko teg ko ca la muy war mbaa nga dimbali ko ba mën a war ca la muy war daañu la ca bindal tuyaabay saraxe ba tey nee na nga jël ay bagaasam tegal ko fa mu ko bëgg a teg niki bu dee ci kaw sareet bi mbaa ci kaw watiir bi mbaa de saxaar mbaa oto moom daal saa yoo ko jëlalee bagaasam tegal ko ko fa mu ko bëgg a teg rek moo xam ci kaw daaba la moo xam ci kaw leneen la ñu bindal la ca tuyaabay saraxe ba tey bu fekkee dangaa julli woon yow dong amoon ngëneelal julli mbooloo kon ba tey boo gisee kenn kuy julli nga ànd ak moom dañu wax ne mbooloo ci julli mi ngi tàmbalee ci ñaar nga xam ne kon boo àndeek moom julli danga am ngëneelul mbooloo moom itam mu am ngëneelul mbooloo loolee nga def baa mu sa julli ànd ak moom daañu la ci bindal tuyaa bay saraxe waaye nag kenn koo xam du ilimaani raatib moom rek nag nga baamu ànd ak moom ngeen di ñaar nag mel na ni mu am wuute koo xam day sàkk ko dimbale ku ko wallu nga dëgg tànk yu dër mooy nga gaawantu rek daldi gaaw dem dimbali ko loolee nga gaawantu ci say tànk daw nga daw bu baax a baax dëgg tànk yu dëgër bëgg koo xeet bi daañu la ci bindal tuyaabay saraxe mu àbb nga abal ko ngir yàlla da nga ci am tuyaabay saraxe ku tawat nga seeti ko da nga ci am tuyaabay saraxe gu ngi ab néew ba tey da nga ci am tuyaabay saraxe ba tey yanu néew ba mbaa nga bokk ci ña ko yore di ko yóbbu di ko fab googee di yóbbu da nga ci amee tuyaabay saraxe ab julit bi yàlla teg aw tiis nga dem jaal ko maanaam defal ko ci loolee ko yàlla teg da nga ci am tuyaabay saraxe siyaare sa mbokkum jullit ba tey te yàlla rek tax nga ci am tuyaa bay saraxe wétali boroom ak wéetaay dañ koy wax nag wétali boroom ak njaay àllu waaye rek muy ab jullit bu wéet nga dem wétali ko ngir yàlla nga ci amee tuyaa bay saraxe xadd xaalaxaa wax na leen ar raisu kilifa ga te moo di alyadaali